ok alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala bi ñu wërsëgal ñu dajawaat ci néegam di fas yéene jàng ab téeréem ci tey jii nga xam ne mooy onzième jour fukkeelu fan ak benn ci chehru ramadan muy tombeeg it suñu fukkeelu daje ak saaru mag wi nga xam ne mooy suratu nisa di saar bi gën a gudd ci téereb yàlla bi gannaaw suratul baqara ëmb lépp loo xam ne nii daani ko dund doomu aadama bi saar bi dana ca junju leeral ca fan ca war a jaar loolu kon incha allah tey ñi nga war a daje sunu aye 102 mooy fi suñu borom bi di wax wa ida kunta fihim fa aqamta lahum alsala incha allah bu dee cheikh alin pare na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم suñu boroom jalla wa ala mu ne yow yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ida kunta fihim su dee dangaa nekk ci ñoom fa aqamta lahum salaa nga taxawal ñeel leen julli ga ca mooy jullit gay am ca biir xare ba faltaqum taifatum minhum maak na taxaw benn kuréel ca ñoom ànd ak yow wal yaxudu aslihatahum bu ñuy ànd ak yow di julli it nañ jàpp seeni ngànnaay fa ida sajadu suñu demee ba sujuut fal yakunu min waraikum nañ wëlbati ko dem ca seen gannaaw wal taati taifatun uxra lam yusallu gannaaw ba da ñëw beneen parti beneen ba nga xam ne julli wuñu fal yusallu maaka ñu julli ànd ak yow wal yaxuzu xisrahum nañ jëlit la nga xam ne mooy seen feguwaay wa aslixatahum ak la nga xam ne moom mooy seeni gànnaay wadda lazina kafaru dafay sopp lool yéeféer yi law taxfuluuna an aslihatikum ci bu ngeen demoon ba sàggane ca seeni ngànnaay wa am ci atikum ak seeni bagage fa yamiluuna alaykum maylatan waxida ñu jeng jëm ci yéen génnug jeng kese ngir faagaagal leen wala junaaha alaykum du ngeen am nag benn ngant in kaana bikum azam min matrin su dee da ngeen am lor goo xam ne daa jóge ci taw aw kuntum marda wala ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen a feebar an tada'u aslihatakum ci ngeen di teggi ay daal di bàyyi la nga xam ne mooy seeni ngànnaay waaye wa xuzu xisrakum waaye na ngeen jàpp la nga xam ne mooy seenu fagaru ni ngi noonu inna allaha aadda lil kafirina azaban muhina yàlla day mi ngi waajal yéeféer yi mbugal boo xam ne bu leen di toroxal la mi ngi noonu mbokk gis nañu suñu boroom subhanahu wa taala lii nga xam ne moom la gën a fonk ci luñ koy defal ci kaw suuf moom mooy lii di julli julli bu jotee lépp loo xam ne doomu aadama ya ña nga ca woon dañ koo war a bàyyi daa di taxawal julli looloo tax ba tey jii ñi ngi dem di julli ñi ngi nekk ci geer yéemuñu ci nekk ci geer waaye dem nañ ba ñaari armée yi campé nañu jàkkaarloo léegi naka la ki jiite jullit ñi di def mbokk kuy jiite jullit ñi su booba suñu borom dani armée bi nañ ko xaaj ñaari xaaj am benn imam imam boobee bu taxawee mooy jiite ñaari xaaj yépp suñu delloo ci salaatul xawf bi boroom xam-xam yi indi nañ ci lu ëpp fukk ak juróom ci ay melokaan donte ne bokk na ba ci gën a siiw mooy li suñu borom ne soo jógee taxaw di julli ne benn kuréel ñëw ànd ak yow masalan nekkoon nañ deux mille personnes ne mille personnes yi ñëw ànd ak imaam di julli waaye jamono bi ñuy jullit borom bi mu ne téye leen seeni ngànnaay na am ñu ànd ak imaam julli benn rakka suñ jógee jëm ca ñaareelu rakka imaam bu taxawee ñoom bu ñu demee ba jàng faatiha ak saar mille personnes yu nekkoon ci gannaawam ñoom dañuy daldi rokkoo daldi dem def seeni sujud daldi sëlmal seen ñaari rakk mat na imaam moom mi ngi ci ñaari rakkaam ba pare su ko defee mille personnes yooyu daal di dem jël position mille personnes yi jàkkaarloo woon ak noon yi su ko defee ñaareelu mille bi daal di ñëw imaam yi ngi taxaw moom ci ñaareelu rakkaam ñu kàbbar imaam jiite leen benn rakka daal di toog ndax moom kon léegi ñaari rakkaam mat na su ko defee ñoom ñi mujj a ñëw jóg mottali seen benn rakka suñ demee ba imaam yéeg ne pare nañ seen taaya imaam sëlmal ñu ànd sëlmal kon première partie bi la imaam di ànd ak takbiratul ihram deuxième partie bi li imaam di ànd ak sëlmal imaam dana am ñaari rakka ñoom ñëpp ñu am ñaari rakka lii moo ci gën a siiw donte ne wax naa la lu jege fukki nangam ak melokaan wax nañ ko ci kon léegi suñu borom mu ni na parti ñëw julli beneen parti garde gannaaw bu ñoom ñu ñëw julli waaye suñu borom mu ne ak lu mën a doon téye leen seeni ngànnaay te jël leen seen matukaay xuzu xisrakum loolu it mu lay jàngal mbokk julli dey mooy kiy wékku ci yàlla ca ci yàlla kese lay wékku waaye nag balay wékku ci yàlla la ka yàlla may dana ko jëfe ba pare doog a wékku ci yàlla ngi noonu benn waay daa jóge fële ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc ci giléemam daa di ñëw dugg ci yonent bi ci jàkka ji mu ne ko sa giléem gi doo ko tënk mu ne ko ah man de tawakkaltu ala allah dama wékku ci yàlla rek yonent bi ne ko waaw da nga koy tënk ba pare nga doog a wékku ci yàlla noonu la ñuy wékkoo ci yàlla su ko defee suñ càmm buy tëdd da tëj buntu kër gi tëj buntu saal bi tëj buntu néeg gi yëpp léegi nag wékku ci yàlla borom magasin ba utal porte fer ah utal caabi yu bari daa di tëj sa magasin caabi doogu wékku ci yàlla nag ndax loolu li ngay ciy gëm mooy portefeuille bii kat du teebu yàlla doge la ñu sàcc ma laaj ma sàcc kon danaa def sa mettukaay yépp ba pare na yàlla yàlla nag ma aar ci ñi may sàcc loolu mooy julit da ngaa feebar tawakkal alallah wékku ci yàlla faj waaye nag du tee nga faju ji waaye wékku ci yàlla gi mooy tax ba doo dem ca njabarkat ya doo dem ci lu xaraam ndax da ngay gëm ne yàlla da koy faj sama devoir dong lay def mi ngi noonu sàkku jil wërsëg sàkku jil doom sàkku jil lépp tawakkal alallah wékkul ci yàlla gannaaw ba nga defee la nga war a def xuzu xisrakum jël leen seen fagarwaay borom bi ni dafay mébét julit ñi yéeféer yi day ñi ngi mébét ngeen sàgganoon ba ñu dal ci seen kaw benn yoon faagaagal leen ndax tey bu julli ñu doon julli nga xam ne kat tey parce que lan yéeféer yàgg suñu gannaaw ñun ñu ne nañ julli julli gi lu mu néew néew dana def xanaa cinq minutes bu dee dañoo jublu penk du julli ñoom dañuy ñëw dal suñu kaw loolu it da ngay gis ne ay jullit heure bu ñu nekkoon ci loo xam ne ak danger la ca mënuñoo fexe ba ñàkk julli fokk war nañ jël ñoomit seen matukaay seen kemtalal kàttan borom bi li tax mu wax ñu di mbokk daan ci déggee ñaari mbir yu am solo benn mbir bi yàlla dana ko feddali ci suñu bind bi bi ñu topp waaye fii moom li ñu ciy déggee importance julli mbooloo loolu tax borom xam-xam yi dañ ci am wuute am na ñoo xam ne dañ ni julli mbooloo charte la pour julli gi baax ki nga xam ne mën na julli mbooloo dégg na nodd gi mu lànk ba ñu julli ji kooku bu julli amul julli am ci ñoom ñu ne déedéet ab waajib la rek ki nga xam ne moom war na koo def su ko deful am na bakkaar mais julleem baax na soo dellu woon lu mel ne ay mazhab maalik ak yooyu ñoom dañ naan sunna mu akkada la sunna mu akkada buñ koy wax mooy dafa dëgër ba nga xamee ne jullit bu sàgganewul diineem du ko bàyyi waaye ak lu mu mën a doon mbokk ñun ñu ngi diggu doomu rek ànd ak ci ne soo julli ji woon ca mbooloo ma day yow léegi am nga tuyaa ba joo xam ne ju rëy la waaye xoolal ci gëm yàlla gëm àllaaxira xam ne àllaaxira ay tuyaa ba rek a fay jëriñ ñu ne la yow dégg nga nodd gi solo sa daal dem uy ji nodd gi yow nga julli sa kër ñu ne la waaw boo demoon ca jàkka ja day julli ga nga fay julli moo gën ñaar fukki yoon ak juróom-ñaar julli gi ngay julli sa kër boo gëmee yàlla gëm àllaaxira ci amoo ngànt ndax doo dem julli ji ah kay même bu ñuy wax ay charte laak farata laak yooyu yëpp nañ ko jël teg fee waaye ngëneel bi ci yonente bi alayhi salaam wax rek tax na ba bépp jullit bu yëg ne julli jot na ca man kat julli ji ma ci mbooloo mi dana yëg ne man kat lu rëy rëy rëy rëcc na ma mi nga noonu lu rëy rëy rëy rëcc na ma su ko defee kon loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñaareel bi li suñu borom ne yéeféer yi de suñu sañoon ànd dal seen kaw mbokk loolu la ñuy dund suñu jamono yi tey tey jii boo xoolee li ñuy tuddee par le pacte de Varsovie li ñuy tuddee le parc bu OTAN nga xam ne bee ma nga ko ti Russie bee Amérique ak ay suqam yi ko àndal tey ñoo jiite adduna bi ñoo faagaagal la nga xam ne mooy kattanu jullit ñi dëkk jullit yépp ñu ngi seen suuf ku leen neex bombardé ku leen neex daaneel mi ngi noonu ci amul benn kattan boo xam ne mën na taxaw aar leen ci loolu loolu la ñuy gis Afghanistan moom la ñu gis Irak moom la ñu gis Libye moom la ñu gis fépp muy wane ne kon loolu mbokk la ñu suñu borom waxoon ci ne wa xuzu xisrakum loolee wax dëgg yàlla boori lislaam yi dem nañ am ca njuumte bu rëy ca mbokk ba dellu woon ci li ñuy tuddee ci siècle li nga xam ne moo diggante dixième ba quinzième siècle kattan bi l'islam amoon ci dawla osmaniya biñ mujj a daaneel ci puissance yi gën a rëy ci àdduna bi la bokk waaye natt bi ñu yàlla subhanahu wa taala nattoo mooy natt teqalikoo suñu biir xëccoo suñu biir boor yi xeexatuñu ngir yàlla mais xeex ngir xëccoo ca la yéeféer yi ñoom profitoo ba jël kattanu àdduna gi léegi nag gis nga ñooy ànd nu mu leen neexee Amérique ak su xam fu leen neex buur bu leen neex yëkkati buur bu leen neex daaneel loolee nekk loo xam ne borom bi waxoon nañu démb xuzu xisrakum jël leen seen matukaay borom bi daal di ciy dolli nag ni li ma leen wax ne fi ngeen toll nekk leen dans vos gardes jël leen seen matukaay jël léegi-léegi nag feebar mën naa am koo xam ne da ngaa feebar dara nekkul ci nga teg say arme waaye bu dee tawit da leen a dàpp dara nekkul ngeen teg seen arme ca mbokk jullit imaginem rasul sallallahu alayhi wa sallam ak i sahabaam ñu daan ànd dem di jihaad mat ay junni nekk ci àll Arabie saoudite bi bu bëccëgee tàngooru Arabie saoudite dana yëg léeg-léeg cinquante degré mi ngi noonu mais ñu nekk ci digg àll bi ñu dem ay la nga xam ne ni moom mooy taw bi di wàcc seen kaw di tuuru seen kaw loolu lépp da ngay gis amuñu ay yenn tente yoo xam ne fa la ñu doon laqoo da daan xitti seen taw kaw léeg-léeg suba ba ngoon taw bi sottee ko seen kaw borom bi nag ne bu dee ab taw daf leen gaar ci loolu dara nekkul ci ngeen dal daal di téye la nga xam ne mooy seen arme daa day wàcc seen arme lii lépp mbokk suñu borom nag teg ca ne waaye même bu ngeen teggee arme yi xuzu xisrakum jël leen ba tey seeni ngànnaay balaa leen la nga xame ne ni mooy yéeféer yi di bett loolu it mbokk mooy jullit mooy ka nga xam ne mooy ki yeewu mooy ki fagaru ba doomu aadama yi duñ ko nekk di ko lor du doon ci alalam du doon ci njabootam du doon ci lu mu mën a doon doomu aadama war ngaa fagaru ba benn say-say du la bett di la teg ay lor moo tax suñu borom ne lu ngeen mën a nekkit xuzu xisrakum day leen jël seen faguwaay amma nag yéeféer yi moom lan la leen yàlla jagleel nee na moom moom mi ngi leen di jagleel mbugal mu leen di toroxal yal na yàlla musul ñu ci mi ngi noonu incha
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون فترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما بارك الله فيك suñu borom mu ne fa ida qadaytum salaa su ngeen demee ba jooxee julli ga bu dee arab ba dëgg qadaytum mooy fay julli ga fazkurullaha qiyaama dee leen tudd yàlla ci seen taxawaay wa qu'uudan ak toogaay wa ala junubikum ak ca seen wet ya fa ida tma'nantum su ngeen dem ba am kóolute nag fa aqimu salaa taxawal leen julli na ko yàlla santaane inna salaata kaanat alal muminin julli day nekk na ca kaw ña gëm kitaaban mawquta téere boo xam ne dañ koo wutal ay waxtu wala tahinu fi ibtigaai alqawm bu leen lompañ ci sakku xeet ba ak mooy yéefér yi bu leen lompañ ci dàq leen ngir jihaat ak ñoom in takunu ta'lamun su ngeen nekkee di am métit fa innahum ya'lamun ñoom it na nga nekk di am métit kama ta'lamun comme ni ngeen amee métit wa tarjuuna min allahi ma la yarjuun te yéen a ngi yaakaar ci yàlla loo xam ne ñoom yaakaaruñ ko wa kaana allahu aliman xakima te yàlla day nekk na di aji xam di aji xereñe inna anzalna ilayka alkitab ñun day ñoo wàcce ci yow téere bi bil xaq ci dëgg li taxkuma bayna annaasi bima araka allah ngir nga atte diggante nit ñi ci li la yàlla di wan ay di la di xamal wala takun lil xaainina xasima bul nekk mukk ñeel workat yi koo xam ne da nga leen di dagg santeel mi ngi noonu mbokk suñu boroom day wax ne nañ julli waaye bu dee julli gi pare na nañuy tudd yàlla lu bari na doon dañoo taxaw dañoo toog wala dañoo tëdd mbokk zikrullah gis nañu mooy dundal xol ku mel ni ibnul qayim rahimahullah daana wax yow jullit xamal ni ni jën mel ci ndox nga mel ci zikrullah jullit bi nekk ci zikrullah mi ngi ci sécurité mi ngi xolam di dund heure boo fàttee sa borom rek yaa ngi dugg ci mbaalu seytaan suñu borom ne bu ñu jullee ba pare nañ koy tudd kii di Muaz ibnu Jabal suñu yonent alayhi salaam dana ko man day dama laa bëgg lool bul fàtte heure boo jullee ba pare del wax yàlla yàlla nag ma dimbali ci ma lay fàttaliku yàlla yàlla nag ma dimbali ci ma lay sant yàlla yàlla nag ma dimbali ma jaamu la jaamu gu sell ay allahuma inni ala zikrika dimbali ma ci ma lay fàttaliku fàttaliku googee da ngay gis ne mooy nekk ci gannaaw julli ga ay jullit boo ne asalaamaaleykum rek bul jóg rek daal di dem sab liggéey wa daal di téye sa làmmiñ bu la neexee nag sëlmal rek jël say dàll dem say askar nga koy def ca yoon wa bu la neexee dem tëdd di ko def ci kaw lal ba zikr moom mënees na koo def fu nekk julli dafa war a tàmm fu mu toll di zikr looloo tax suñu borom ne inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilaafi leyli wa nahar la ayatin lil ulil albaab tasaare naa ci asamaan yi ak suuf ak ci temps bi muy guddeeg bëccëg ay kawtif yoo xam ne borom xel yi day ñi ngi ciy xalaat ñan ñooy borom xel ca yàlla suñu borom nee na mooy allazina yazkuruna allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim mooy ñi nga xam ne bu ñu taxawee ay dañuy doxam dañoo taxaw bu ñu toogee bu ñu tëddee toujours ñu ngi dem di xalaat ci yàlla moo ko zikr ñetti garab la garab bi gën a kawe sa xol bi ànd ak sa làmmiñ bi di def zikrullah bi ngay wax subhanallah yaa ngi gëm sa xol ne yàlla yow nag yaay aji sell ci mi nga noonu amuloo moroom amoo doom jomm nga ci lépp lu ñu lay melal ila axiri alhamdulillah it na ko noonu nga yëg sa xol ne mboolemi xéewal yi feeñ yi nëbb yépp ci yàlla la jóge ñaareelu gratu zikr mooy nit ki di tudd yàlla ci xolam tudd yàlla ci xolam mi ngi noonu di xalaat ci asamaan yi suuf di xalaat ni mbaaxoog yàlla ila axiri yeneen tibaali sol som daana wax ni bokk na juróom-ñaar ñi yàlla keral yowmal qiyaama ki wéet di xalaat digganteem ak boroomam bët ay rangoñam tuuru mi ngi noonu ñetteelu grade bi mooy kiy tudd yàlla ci làmmiñam kese mi ngay def zikrullah ci làmmiñam xëy na mi ngi seetaan leneen wala mi ngi xalaat ci leneen mais làmmiñ moom mi ngi def zikrullah loolu it grade la boo xam ne grade bu baax la moom la yonente bi alayhi salaam waxoon benn waay ayoom yàlla yónni dénk ma ci lislaam loo xam ne danaa ci mën a sax mënoo ko fexeel ba sa làmmiñ daal fu mu toll ne tooy ci zikrullah kon day leen def zikrullah zikrullah boobu suñu borom mu ne fa ida qadaytum salaa wax naa leen sànq ne mooy bu ngeen fayee julli gi mbokk julli su jotee rek bor la bu gàddu sa loos heure boo ko julliwul bor la boo ko jullee nag fay nga ba tax suñu borom xadaytum moom lay wax ci jumaa ja fa ida qudiyati salaa suñu fayee jullig jumaa gi ça ne veut pas dire que dañoo faat julli gi waaye fi jumaa ji duggee rek bor la bu gàddu ci bépp julli ku julli su jumaa nag fay nga ida qudiyati salaa su boobaa suñu borom mu ne fantashiru fil ard tasaare loon ci kaw suuf nañuy dem ca maçon ga ñii magasin ya ñii pharmacie ba ñii ila axiri waaye nag fu ngeen mën a nekk ci kaw suuf it wazkurullaha kasiran laallakum tuflihun fu ngeen fa mën a nekk ba ànd leen fa ak tudd yàlla ngir ngeen bokk ci ñi texe loole bokk moom mooy zikrullah bi nga xamee ne la ca gën mooy li ñuy tuddee albaqiyat alsalihat albaqiyat alsalihat suñ ko booylee day firi mboole mi jaamu yàlla waaye suñ ko tënkee ñoo ngi koy jagleel li nga xam ne mooy zikr yooyu di la ca jiitu mooy subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah lii mooy la gën ci lu ñuy zikre bu la ci neex jëkke mi ngi noonu gannaaw ba la nga xam ne mooy salaat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam julli ci yonent bi gannaaw ba istixfaar yii yépp da ngay gis ne ay zikr la yu ñuy def ci gannaaw julli bu dee nag loo xam ne nii paase na foofee ñu xam ne li ëmb loolu lépp mooy téereb yàlla bi téereb yàlla bi alquran mooy la gën lu ñuy defee zikrullah yàlla tombeel na xutba démb bi yépp mi ngi doon wax ci zikrullah borom boobu nag subhanahu wa taala ni nañu xam ne day lii nga xam ne nii am ngeen kóolute da ngeen ci dal na ngeen julli ni ni yàlla santaane ñu julli ko masalan sànq ñi ngi ci guerre bi gis ngeen niñ jullee julli goo xam ne julli guerre foofu guerre dong nga ko mën a defee feneen foo ko defee baaxul moo ne day dana toll foo xam ni suñu borom nee na xam naa ne du ngeen mën a xaaj armée bi ca mooy dem nañ ba jullit ñi ak yéeféer yi demoon nañ ba roofaloo tey masalan jant baa ngi waaj a so ca yow jullit jullee goo tàkkusaan luy pexe suñu borom subhanahu wa taala ni fa in xiftum fa rijaalan aw rukbaanan fa ida amintum fazkuru llaha kama allamakum ma lam takunu taalamun suñu demoon bay xeex sax nga xam ne bu njëkk ay fas ak jaasi la woon mais léegi tey mën nañu wax ne bal yaa ngi tàkk guddeeg bëccëg char de combat yaa ngi dóor waaye jant baa ngi waaj a so julli gu ma tàkkusaan su boobaa da ngay kabbar di daw di junj say rukkoo di junj say sujjóot waaye fokk nga julli wala nga nekk sa kaw otu char de combat di julli fu ngeen mën a nekk di julli lu waral loolu suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na jullikat dafa nekk waxtu woo xam ne dañu ko limité kitaaban mawquta heure bu jotee amul lenn luy priorité lu dul julli mu ngi noonu lenn luy priorité lu dul julli loolu tax mbokk julli lenn rek kay tax mu teggeeku doomu aadama bi mooy léegi xel mi nekkatu fi jeex na mais tant que xel maa ngi fi la nga ca man da nga ko ca def mi ngi noonu la nga ca man da nga ko ca def même bu doon da ngaa tëdd paralysie sa lalu hôpital julli jot na la nga mën daal def ko sa xel na nekk ci yàlla soo mënee tari taril soo mënee yëngal sa bopp yëngalal waaye daal fokk la nga man da nga ko ci def amul it ngant buy téye doomu aadama bi julli su ndox amul tiimal su tiim amul it waxtu waa ngi romb jullil mi ngi noonu léegi nag mu des waa ji nga xam ne da koo faat ci ngant su boobaa moom suñu borom yàlla may na ko mu fay ko fu mu ko mane waa ji ka fàtte fàtte suñu borom yàlla fu mu ko ko fàttali foofu mooy waxtoom mi nga noonu fa mu ko ko fàttali foofu mooy waxtoom mu des nag waa ji ka fàtt ci ne da koo sàggane julli jot na amul ngànt ba pare julliwul ku mel nii li ëpp ci borom xam-xam yi dañ ne naam dina julli da doog a tuub waaye am na ci ñoo xam ne dañ naan jarul sax muy julli parce que bu julli it baaxul nga noonu bu jullee baaxul yi mel ne rek lii di aj makka am nga kattanu mën na dem makka xam nga ne nit ñaa ngi aj makka nga lànk kaari aju ji woo makka bàyyi ba nit ñi aj ba pare nag nga doog a armal nag dem taxaw arafat muzdalifa muna ndax aj googu baax na aj gi baaxul looloo tax ku mel ne ibnu taymiya ak ñu muy àndal dañ ne ki nga xam ne amul benn ngant mi ngi xalam xam ne ne julli jot na bànneexu àdduna dong nga tax mu bàyyi bu julli gi romb kooku jarul muy julli parce que bu julli it égal zéro mi nga noonu loolee kon mu bokk ci bakkaar yi gën a garaw ci bakkaar yi rasul sallallahu alayhi wasallam joxe na ci benn misaal nee na man faatathu salaatul asr fa kaannama wutira ahluhu wa maalu nee na ki xam bëgg a xam luy danger tàkkusaan jot nga nekk sa football wala sa commerce wala sa tukki julliwoo ko ba baa tàkkusaan ji di passé nee na mi ngi mel ni ku tukki woon ñëw ñu ne ko ah yow de am na loolu dox sa gannaaw mu ne lan ñu ne ko sa njaboot yépp dee nañ sa alal yépp takk na mbokk loolu musiba la de tey maa ngi xëy dégg ci rajo bi koo xam ne ndeysaan ñeenti doomam ñoo ànd takk ci benn néeg mi ngi noonu tey jii rek yal na yàlla subhanahu wa taala yërëm leen ca may waajur yo xol buñ ko mën a muñee waaye mbokk da ngay gis aru sal loolu la wax nee na nga ñëw ñu ne la mboolem say la nga mbokkaloon mu naaw ñu ne dee nañ mboolem alal da nga amoon ñu ne takk nañu mooy ki nga danger bi nekk ci loolu mu ni mooy ki nga xam ne julli dafa jot fekk yow julliwuloo allahuma lu dul li suñu borom wax kitaaban mawquta yàlla yombal na ko lool firiwul ni lii ngeen gis ci table bi mooy heure julli déedéet lii mooy heure bi waa jàkk ji bëgg a daje mi ngi noonu waaye bu dee jullee moom suñu borom yàlla fajar tey jii da ngay gis ne à peu près mi ngi jot ay cinq heures et demi mais la nga xam ne nii moom mooy waxtu wi dëgg-dëgg mën naa dem ba la nga xam ne mooy six heures quarante donc lu mu néew néew une heure de temps am nga ko ci diggante fajar mi ngi noonu tisbaar ñu ne la masalan une heure demi tis tisbaar jot na masalan tis loolee ba ba quatre heures bi jot da ngay gis ne yaa ngi ci waxtu wi naka noonu tàkkusaan buñ ne laa tey ji ay quatre heures et demi ñu ne tàkkusaan jot na ba baa jant bi di so yaa ngi ci waxtu yi loolu lépp kon yaatal la ko yàlla yaatal noonu la timis amee ak yaatu loo xam ne mat na une heure de temps gee am ak yaatu dem na ba fajar ci lenn ci borom xam-xam yi ñeneen ñi de dem na ba xaaju guddi lii bu ñu koy wax mooy ki nekkul ci tukki nekkul ci feebar amma boo nekkoon ci tukki wala ci feebar wala ci xat-xat jamono boo xam ne ku ko xam-xam ne gànt la islam may na la nga boole tisbaar ak takkusaan diggante fi une heure demi jote ba baa sept heures demi heure boo amee jot nga julli tisbaar ak takkusaan imma nga xëcci takkusaan gi julli ko ci heure tisbaar bi mi ngi noonu wala nga retardé tisbaar bi julli ko ci heure takkusaan ba loolu it yàlla may na la ko ci timis ak géey donte ne ñaar yooyu dong lañ mën a boole diggante tisbaar ak takkusaan ak diggante timis ak géey fajar kenn du ko booleeg dara mi ngi noonu kenn du boole géey ak fajar kenn du boole fajar ak tisbaar mi ngi noonu su ko defee kon loolu la borom bi wax kitaaban mawquta borom bi bàyyi loolu daa dina nag yéen jullit ñi bu leen tayeel ci tasaare jihaad fi sabilillah tasaare kaddu yàlla na am coono yi tar mi ngi ci waaye su ngeen nekkee ki coono ña nga xam ni ñoom ñooy seeni noon ñoom it ñi ngi ci coono te yéen a ngi yaakaar ci yàlla lu ñu yaakaarul na am bokk jihaad fi sabilillah ci li gën a metti la bokk li gën a dangereux la bokk li ngi ni jam toolu jihaad suñu demee lum néew néewu dañ fa bàyyi téeméeri bakkan suñu nibbisi lu mat cinq cent dañ fa amay gaañu gaañu yi grave loolee da ngay gis moo daan am naka jëkk ci jihaad di lu métti borom bi nag ne waaw ñi ngeen di xeexal di yéeféer yi ñoom it ñi ngeen méttit te yéen yéen a ngi yaakaar àjjana ci ñoom yaakaaruñu ko ca mbokk da ngay xool rek soo bëggee comprendre jihaad fi sabilillah xoolal suñu doom yi jël seen bakkan teg ci océan bi ngir dem Espagne lan la leen loolu jaral ñoom ñëpp dégg nañu ay junni nit ñoo ci dee waaye seen yoon nekku ci ay conditions yu doy waar la ñu traversé pour dem lu tax yaakaar ba ñu yaakaar ne bis bu ma duggee Espagne kat sama morom muudu ba nga xam ne fexe na ba tabax kër baayam heure bu ñëw oto lay indi heure bu ñëw nangam nangam ca man naa ngi sama seret bi rek wala sama tool yi su ma duggee Espagne danaa am la mu am looloo tax luñ ci mën na daj gisuñu ko am déet yéen a loolu la borom bi subhanahu wa taala wax xatta footballkat yi rek gis ngeen barki démb bi leen jiitu réew bi recevoir yi da leen daal pare nañ ci jàppale leen amuñu fi ñu yem nangam nangam léeg-léeg gis ñuy football ñu ne leen voilà nangam su ngeen gagné premier tour da ngeen am taa. su ngeen demee demi final am temps su ngeen demee final am temps naam dañuy dem pour gagner waaye nag bu seen xel ne yar ci la la ñu leen dig dana tax kuy fubal loo dagg dagg dagg dagg loo man ci kattan danga ko def am déet looloo tax suñu borom mu ne hey yéen jullit ñi jihaad delu metti la waaye nag yéen li ngeen yaakaar yéefiri yaakaaruñ ko loolee kon la borom bi subhanahu wa taala wax loolu mi ngi noonu borom bi nag daal dina yow yonent yàlla bi wàcce nañ ci yow alquran ci dëgg ngiree nga atte doomu aadama yi ci sa xam-xam déedéet ci li la yàlla won mbokk alquran yi ngi nii yàlla da ko wàcce ngiree mu atte suñu diggante ñun jullit ñuy wax la ilaha illallah muhammad rasulullah ñun lii mooy suñu constitution doonte ne malheureusement dëkki jullit ñi lu dul la nga xam ne mooy arabie saoudite bale jël nañ constitution bi yàlla farataaloon ci ñoom teg ko fële créer seen constitution buñ créer woon seen constitution sax muy jàmm waaye recopier constitution tubaab bi mi ngi noonu teg ko ci place alquran ni tubaab bi gisee rek noonu la ñu gisee la nga xam ne mooy seen i atte ca mbokk yàlla atte jaami doyloowu ci sax ab yonentam moom nee na moo koy atteel boppam bi ma araka allah yonent boobu laa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuuxa lu mu wax yàlla ko ko waxloo looloo tax yàlla ko sant ne ko ku fi sàcc dagg leen loxoom ku fi njaaloo duma leen ko ku fi am jëkkër njaaloo rey leen ko képp koo xamee ne nii bàyyi dee na bàyyi alal alal ji nañ ko defee nii ab sëy nii lay tëddee ki fa sa jabaram ñetti yoon aram na ko ila axiri ila axiri loolu lépp suñu borom moo ko atte ci téeréem ci loo xam ne moo ko won ab yonentam mu ne ko nag kon atteel li ma la jox wala takun lil xaa'inina xasima képp koo xam ne xam nga ne dafa toon wor bul ànd ak moom di ko dagg santeel ca loolee kon moom la yàlla sant ab yeneen tam mi ngi noonu Cheikh Ali
واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا barakallahu fiik suñu borom mu ne ay yonent yàlla bi wastaghfirillah jéggulul sa borom inna allaha kaana ghafuran rahima sa borom yàlla day kuy jéggale la ca kuy yërëmaate la wala tujaadil an allazina yaxtaanuuna anfusahum bul nekk di dagg sente ñeel di dagg senteel ñeel ñi nga xam ne dañoo war seeni bakkan inna allaha la yuhibbu man kaana xawaanan asima yàlla bëggul képp koo xam ne waraa kon la def ko te bàkkaar bu sax la yastaxfuuna min annaas ña ngay nekk di nëbbu nit ñi wala yastaxfuuna min allah te lu ñu nëbbu yàlla wa huwa maahum te yàllaa ngi ànd ak ñoom is yubayituuna maa la yarda min alqawl jamono bi ñu nekkee di fanaane la nga xam ne yàlla gërëmu ko ci ay kaddu wa kaana allahu bima yaamaluuna muxiita te yàlla day nekk na ca la nga xam ne ñu ngi koy jëf di ku ko peek mi ngi noonu ha antum haulai jaadaltum anhum fi lxayaati dunia ama ndax yéen yéene ñooñu nga xam ne ñoo leen di dagg santeel ci dundug àdduna gi waaw léegi nag fa man yujaadilu llahu anhum yowma alqiyaama ana kuy nekk di dagg santeeg yàlla ci ñoom yowma alqiyaama am man yakunu alayhim wakila wala boo kan mooy nar a nekk ab garantie ci seen kaw mi ngi noonu mbokk lu jiitu suñu borom nee na yonent bi atteel diggante nit ñi gannaaw ba mu ne ko wastaxfirillah jéggulul sa borom ndax mbokk atte kenn dong moo mën a atte muy suñu borom subhanahu wa taala moom dong moo xam dëgg-dëgg mbir yi la ci biir ak la ci biti amma attekat lan la man mooy liñ ko wax mu déglu leen buñ ko bu leen dégloo daa di de atte bi de lii la soo demoon ci ñi jàngale droit ñoom loolu la ñuy wax mooy dañ naan nous disons le droit mais nous ne rendons pas la justice masalan benn waaye ngi nii ñëw na ñu taxawal ko ak i preuve waa ji ne kii kat moo ñëw dajji sam néeg jël fa nangam nangam ma dembe ak ma sàmm ne waaw waaw ñun dañoo ko gis attekat bi lu muy wax danaan ah su boobaa kon nañ teg ci moom loi mi ngi noonu ñeenti ay ay gor ñëw ta ñëw ci attekat bi na ko diw ak diw de ñoo dem gis leen ñuy njaaloo ñeenti gor su boobaa lu lu attekat bi di wax jàppale leen ngeen rey leen mais nag ndax dëgg-dëgg mbir mi noonu la demee loolu yàlla rek moo ko xam loolu tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne yéen a ngi ñëw ma leen di atte nit ki mën na gën a saf làmmiñ ba ma jàpp ne moo nekk ci dëgg ma atte dëgg gi jox ko waaye képp ku ma atte dëggu keneen jox ko su ko neexee na jël wala mu bàyyi na xam ne safara laa dagg jox ko te loolu it muy wane ne yonent yàlla bi xamul woon kumpa xamul woon kumpa yàlla moo koy def moo tax mu ne ko foo attee ba pare jéggulul yàlla ndax yow dogal nga ne du mi yaa tooñ mi ngi noonu ca ndax moo tooñ dëgg-dëgg nag yàlla rek moo ko xam yaa ngi ko basé ci loolu maa ngi leen di wax ci kenn ku fi nekkoon di Kéba Mbaye yàlla nattoo woon na ko muy attee donte ne yàlla na ko yàlla yërëm ku fonkoon diineem la ma sañ koy laaj lan ndax amul lu la metti ci sa atte yi nga doon atte mu ne waaw waaw am na lu ma ci metti lool ndax nee na mas naa dem pompier di bëgg a jël oto benn xale dogaale ma téel ma samay bagage biñ demee ba ci oto yi ma làmb sama poste di ko bëgg a jox dara mu téye sama loxo ne ma ndax xàmmee nga ma mën a ko déedéet mu ne ma ana tel yaa ma tëjoon nangami ati kaso ci nangam ak nangam waaye maa ngi lay waatal ci yàlla ne loolu ñu ma jàpp woon dara laa ci deful daal di may wan gannaaw nee na daal affaire boobu touché bi mu ma touché ah nga xam ne kon ñun suñu liggéey bi liggéey bu doy waar la te na am mbokk mi ngi noonu na ñaata nit la ñuy condamné léeg-léeg à vie sax nga condamné ko à vie ah wala leneen ak leneen fekk ne dara temps yi passé rek États-Unis am na benn waay boo xam ne 30 ans lañ ko tëj ci kaso dañ koo tëjoon pour rey ko mais biñ demee ba. ci jamono yi passé ki nga xam ne xale bi bi ko accusé woon ne moo gis bi muy rey waaj kookee moo dem ba màgg wëlbatikuwaat dem ci juge yi ne leen hey man mii dañ maa wax loolu la ma wax kii xawma ko tey mosuma ko gis li nga koy jën dara defuma ko ci fekk tëj nañ ko moom 30 ans ba yàlla teewul ñu rey ko looloo tax ba kon atte lu jafe la mi ngi noonu fastaxfirillah jéggalul sa boroom waaye mbokk na doon li ko yàlla sant ci àtteeg ñàkk àtte rasul sallallahu alayhi wasallam niñ ko déggee ci xutba démb bi daana wax ay yéen nit ñi day leen jéggulu yàlla di tuub dellu ci moom man de bus bu nekk danaa tuub di dellu ci yàlla lu ëpp téeméeri yoon mu ngi noonu téeméeri yoon bus bu nekk sunu borom yàlla nag mooy yàlla xafuuru rahim ca la shakka ne yeneen ci bàle sam ne ne àttekat day da ngay gis ne lu jafe la waaye yow bu dee ba ngay atte xam nga lan la lu waa wax nga atte ci yàlla tax bu ci njuum te amee it yàlla dina la baal mi ngi noonu jàll wa ala léegi nag suñuy borom ne ko yow yeneen ci yàlla bi koo xam ne yëg nga ne daa wor bul ànd ak moom di dagg sante ak moom te mbokk lii ab histoire moo ko waraloon donte ne ni alquran dañ naan al ibara bi umumi lafd la bi xususi sabab la ko waraloon benn jullit moo dem ci benn mbokk jullitam ñaar ñaar ci waa ansaar kenn ki dem këram sàcc fa benn mbuusu pepp te mbokk gone Ndakaaru loolu dana ko jaaxal waaye bu njëkk sañu mbuusu pepp valeur la woon mu sàcc fa mbuusu pepp léegi yóbbu këram fi ko yàlla nattoo nag ndekete mbuus mi daa bët affaire baa ngi toq toq toq ba këram mu daal di dem dugal këram bi mu ñëwee waajee xëy gisul mbuusam mu topp tànk bi topp tànk bi kii ba yegg si ci kër waa ji naka mu yëg ne waajaa ngi ñëw mu jël mbuus mi sànni ko ci kër yahud yu mu dëkkaloon daa ngi dégg ñu xëy suba ñu waa ji ñëw na ko sama mbuus yaa yaa ko jël mu ne jëlu ko ñu dem bi yahud yi ñëwee naa ñun de am na mbuus mi nekk fi ñu la ñoo ko sàcc léegi yahud yi ne déet ñun dañ ñu koo sànni waaye ansaar ji nag ay mbokkam ñoom it ban gàcce ànd ak moom waaye li lan la muus lan la koy jiñ ak sàcc te muus maa ngay fekk kër yahud yi ba yonent bi alayhi salaam jeng ak ñoom na ko yahud yee ko sàcc yàlla mi nga xam ne nag mooy xam kumpa yàlla wàcce aaya yi xamal ko ne seen waa ji moo ko sàcc yahudi duñ ci dara te loolu muy wane maanu teg yàlla donte dañuy ay juif lañu mais gis nga suñu borom ni mu leen ni mu leen défendre loolu nag borom bi ne ko bul ànd ak mukk ñoo xam ne dañuy wor te loolu it mbokk ci deret la nekk ci niñ yàlla bindee sa mbokk ba tooñee toujours da nga ko ciy bëgg a génne waaye mbokk sa mbokk ba tooñee pexe bi du ne dem uti avocat seeti procureur sama nijaayu ministre bi waaye nañ na ko yaa tooñ mu jeex nañ na ko yaa tooñ bu dee àq dellool àq jàmbur mi ngi noonu bu dee ne loo xam ne nii loi dafa dal ci kawam nañ bàyyi loi dal ci kawam moom la borom bi subhanahu wa taala mu ne na dal kooku waalidayni wala aqrabin in yaqul ganiyan aw faqiran képp koo xam ne da ngaa gis ne daa tooñ sa waajur laak sa doom laak sa kum mën a doon bul ànd ak moom ci tooñ googee yeneen ci bi alayhi salaam ne saxaaba yi su ngeen amee seen mbokk bu tooñ dimbali leen ko su dee moom dañ koo tooñ dimbali leen ko ñu ne ko waaw bu ñu ko tooñee moom xam na ñu ngi koy dimbali mais bu dee moo tooñ nag mu ne yéen ñëpp taxaw leen ngeen na ko yaa tooñ waaye bu leen ànd ak moom ci tooñ googee borom boobu ne ñii de ñi ngi nëbbu yàlla ñi ngi nëbbu nit ñi ca nëbbuwuñu yàlla ca la ñuy fanaane day di ko wax ci lu bon ak di ko comploter yàlla subhanahu wa taala xam ne lépp ñu ngi ko doon wax ci tafsir yi passé mbokk dajey guddi na am ay jullit de mën nañu am jafe-jafe ba di ko def waaye quatre-vingt-dix pour cent ñu koy def la ñuy daje baaxut la ñuy daje baaxut ñu ngi noonu loolu moo tax ba contraire nit ñu baax ñi la nit ñu bon ñuy def nit ñu baax ñi buñ ju léegee ba ca kanam tëdd nit ñu bon ñi costume cravate ànd ak jànk ci gàddu seen saak ñu daje ci night club ya suñ demee ba njël bu bu bu nit ñu baax ñu jógee taxaw seen kanam borom ci la ñu jógee ci night club ya ñoom dem tëddi seen ñi lal gis ngeen loolu kon moom la borom bi subhanahu wa taala di wax dañuy fanaane lu yàlla gërëmul léegi nag suñu borom ne waaw yow mi nga xam ne da nga am sa mbokk mu nekk ci tooñ ñu dem fañ koy àttee nga ñëw taxaw seede ko dàggasanteel ko ila axiri gis ngeen temps yi rek suñ tribunalu Dakar bi ñu ngi fi démantelé benn réseau boo xam ne dañ ne fa la ñu nekkoon ngir di jàppale nit ñi di am jugement yi niñ koy defee niñ ko defewul ni mu amee fii dam ci dëkk arab yi soo demoon ci dëkk arab yi da nga fay fekk ay ñoo xam ne seen métier mooy lan xëyee suba rek dem tribunal loo bëgg ñu seedeel la ko yaa ngi dégg boo bëggoon léegi ñu la seedeel ñeenti nit ñu la seedeel ne ñoo fekk kii rey sa mbokk ñu ñëw seedeel la ko bu ko defee loolu mbokk suñu borom ne waa d'accord man nga am ku la seedeel man nga am ku la défendre waa yowmal xiyaama nag bu yàlla dee àtte ku lay défendre yaa nga dégg te loolu képp kuy sol robu avocat war naa bàyyi xel ci loolu walla waaye ka ngay défendre na fekk mi ngi ci dëgg waaye kii nekkul ci dëgg ca avocat boo ñëwoon ne ko tey man kat maa bàyyi ba xaaju guddi ma dem kër sëñ sow ren di ko jël alalam mu ne la ah bon noonu nga ko defee mu ne ah d'accord yaa ngi dégg bu subaa ñu dem mu sol rabam dana la défendre ah loolee mbokk suñu borom ne waaw man ngaa défendre nit ki ci àdduna ba génne ko ci xat-xat yam nekkee ëllëg bu ko yàlla dee atte na ku koy défendre te loolu mbokk nañ xam ne ñun dey am nañ ay tëralin ci àdduna da ngay gis ne bu ñu attee lii ba pare ñu ne ah lii lee dañ koy yóbbu encore cour d'appel atte léeg-léeg bu ne doyuñu ñu ne nañ dem cour de cassation atte ila axiri loolu suñuy mbir la waaye mbokk cour yooyu yépp julli dafa war a xam ne atte bi mujj mooy atte borom bi jalla wa ala amul luy xew ci kaw suuf doomu aadama yi atte ko lu dul alaxira yàlla dana ko atte waat loolu tax borom bi ne bu dee yéen a ngi dàggasanteeg ñoo di leen dàggasanteel ba ñu mucc ci àdduna léegi nag ku leen di muccal alaxira yal na yàlla musal ñu àdduna ak alaxira
ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما jazakallahu xayra suñu borom mu ne wa man yamal suua koo xam ne danga def lu bon aw yazlim nafsa wala nga tooñ sa bopp summa yastaxfirillah gannaaw ba nga jéggalu yàlla yajidillaha gafuran rahima da nga fekk yàlla muy kuy jéggale ay jaamam kuy yërëm ay jaamam wa man yaksib isman ku faggoo bakkaar fa innama yaksibuhu ala nafsi dana ko faggu rek ci kaw bakkanam rek lay dellu wa kaana allahu aliman xakima ndax yàlla day aji xam la aji xereñe la wa man yaksib xatiatan aw isma koo xam ne day dafa faggu la nga xam ne ak njuumte la wala ak bakkaar donte ne xatia ismu la ismu xatia la am na ñu koy firi nag ne xatia mooy loo tey ak loo teyul ismu moom mooy loo tey rek lañ koy waxe summa yarmi bihi baria gannaaw ba nga defee loolu nga dem nag jiiñ ko keneen koo xam ne ku ca mucc la sànne ko ci kaw ku ku ca mucc faqad ihtamala buhtaanan wa isman mubina ku mel nii day gàddu na aw dooral ak bakkaar boo xam ne bakkaar bu bir la walawla fadlullahi alayka wa rahmatu cay budul woon a ngëneelu yàlla ak yërmandeem la hëmma taifatu minhum doon na mébét benn kuréel ci ñoom an yudilluu ko ci ñu réeral la wa ma yudilluuna illa anfusahum waaye réeral luñu lu dul seen bakkani kese wa ma yudurruunaka min cheyin ñoom de duñ la mën a lor ci dara wa anzala allahu alayka alkitaba wal xikma yàlla day wàcc na ci yow téere bi wàcc ci yow sunna te mooy lu xereña la mooy sunna ba koy firi wa allamaka ma lam takun taalam yàlla xamal na la loo xam ne xamoo ko woon wa kaana fadlullahi alayka azima te nekk na day ngëneelu yàlla ci yow doon loo xam ne lu màgg la mbokk suñu borom day wax ne koo xam ne da nga def lu bon lu bon mooy loo xam ne ku ko xam-xam ne lii lu bon la ci bakkaar boo feeñal ku ko gis xam na lu bon la wala nga tooñ sa bakkan tooñ sa bakkan boobee mën na doon loo xam ni kenn xamu ko lu dul digganteeg yàlla tey jii ki bàyyi woon bu bëccëg mu daal di dugg ci néegam dóor ay dank ceebam naan kaasum ndoxam génn ànd ak nit ñi woor ndax nit ñi xam nañ ci dara déedéet waa waaye kon tooñul kenn waaye nag tooñ na boppam gis ngeen ki ba julli jot julliwul naka noonu ila xëri mooy bépp bàkkaar rek ci gàttal boo mën a def na doon bu feeñ ci nit ñi na doon loo tooñe nit ñi wala lu mu mën a doon soo ca paree jéggulu yàlla da nga fekk yàlla di la jéggal mbokk njéggalu yàlla ka yàlla di jéggal mooy koo xam ni naqarlu na bàkkaar ba daal di koy ricc rasul sallallahu alayhi wasallam nee na loolu rek doy na tuub an nadaamatu tawba la nga xam ne ricc nga ko ca muy dëgg ci yow loolee tuub la waaye nag boole ci it dogg ne dootuma ko defeti gannaaw ba nag nga jéggulu yàlla la gën a gàtt astaghfirullah nga jéggulu yàlla la gën a gàtt loolee kon da ngay gis suñu borom mu ne da nga fekk yàlla jéggal la lu dul nag mu ànd ak àq doomu aadama tànk mën nga koo delloo àq boobi da nga koo war a delloo sinon yàlla du la ko jéggal mi ngi noonu da nga ko war a delloo su lu yàlla du la ko jéggal allahuma lu dul koo xam ne nag xëy na ay at mi ngi doon def ay agression mi ngi doon def ay yeneen tooñ na tooñ yoo xam ne bari na léegi ñoom tooñal sax xamuñu fu nekk ci kaw suuf ku mel noonu la ko des rek mooy tuub waaye waa jee dem jël alalu jaambur ba pare wëlbati ko naan day tuub ca jaambur a nga ne loolu moom yàlla du la ko baal gis ngeen borom boobu subhanahu wa taala nag ne ki fàggoo bàkkaar bàkkaar ba conséquence ba ci moom rek lay dellu ca mbokku bakkaar day jàpp nit ki àdduna ak alaxira suñu borom mu ni yéefir yi fi jaaroon kullan axasna bi zanbi ku nekk selon bakkaar ba nga doon def ca laa la jàppee ca itamit da ngay xool te ji naan ko tob sàngara mbokk su bàyyiwul ndax xam ngeen nan lay mujjee yaram ba yépp day yàqu jigéen bi jaay boppam ca bàyyiwul day mujj kenn xamul màggatim góor jigéen boo ko gisoon sa xel day teey te mooy ci àdduna affaire bi day dellu ci yow allaaxira it ci yow rek lay dellu laa tazru waaziratun wizra uxra yàlla du teg kenn bakkaaru keneen allahuma lu dul bakkaar boobu koo ko jàngal bu dee yaa ko ko jàngal de moom moom mu wëlbati ko def bakkaar bakkaar boobu daan lu ko bindal waa joo xam ne mosul xam luy sàngara nga fexe ba yóbbu ko ba tàmmal ko naan sangara léegi yow dégg nga heure bu naanee sangara xamal ne bakkar mi ngi lay fekki ku mu ko jàngal it naka noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ba ilaa yawmi diin amul fu ñuy reyee nit ci kaw suuf lu dul ñooñu bakkaar ba ñuy am ba toll noonu dañ ko bindal doomu aadama di jëkk rey frère am ndaw bëri bakkaar mi ngi noonu ah amul fu ñuy reyee nit ci kaw suuf ba ilaa yawmi diin lu dul bakkaar ba dañ ko bindal doomu aadama ndax moo ko fi jëkk indi loolu it kon muy wane ni col yu bon yi xale bu jigéen ba ko jëkk ose sol Sénégal ba ñeneen roy ko ca naka noonu lépp loo xam ne ak carte la lépp loo xam ne lu bon lu mën a doon koo ko jàngal bakkaar bi dalay fekk allahuma lu baax it noonu la ko borom bi defee ña nga jàngal lu baax seen teew ba dalay fekk si borom bi nag subhanahu wa taala ni ala nafsi ci bakkanam la yàlla nag mooy ki xam lépp ki xereñe loolu mooy ñay def bakkaar mu am nag ñu gën a bon waa ji moom daa def bakkaar ba pare wëlbatiku bakkaar bi jiiñ ko keneen nekk ñen moo ko def comme ni ñu doon nettali sànq waa ji moo sàcc pepp bi moo sàcc dugub ji ba pare loolu di bakkaar mu def mu wëlbatiku encore jiiñ ko yahut bi di duubul bakkaar mi ngi mel ne la ngay jàng suratul baqara waa ji nga xam ne dafa rey magu baay bi ndax magu baay bu amul doom léegi bu deeyee moom moo ko war a doon mu yàkkamti deeyam rek xëy daal di koy rey gàdd ko dem ba ci kër yoo xam ne dañoo noona woon ak ñoom mu sànni ko foofee xëy suba nag naan waaw man su ma baay fu mu jaar di topp tànk bu mu yegg si ñoom rek bot ci jaasim ha yéen a rey sama baay gis ngeen affaire ba dem a dem ba ci yonent yàlla Muusa la ca tegu looloo tax suratul baqara ñu tudd ko baqara ndax ca la borom bi ne Moussa nañu rey nag bu ñu reyee nag mu ne niñ ci jël dóor néeg bi bañ jëlee dóor néeg bi yàlla dekkal néeg bi mu jóg taxaw daa jële yonent yàlla Moussa sama doom ji moo ma rey yenu ma sànni ma fii gis ngeen loolu mooy suratul baqara kon ki def bakkaar def na njombe am naa wëlbati ko nag jiiñ ko keneen loolee moom suñu borom mu ne faqad ihtamala buhtaan mooy def loo duural duural googee la yonent bi alayhi salaam mosoon wax saxaaba yi ne leen waaw ndax xam ngeen luy jëw saxaaba yi ne ko ah yàlla ak yonent bi ñoo xam mu ne jëw de mooy ngay wax sa mbokk jullit loo xam ne mi ngi ci moom saxaaba yi ne ko waaw ah waaw bu dee li ñuy wax ah non daf ne ngay waxal sa mbokk jullit naam mooy ngay tudd sa mbokk jullit fu mu nekkul ngay wax sa defu mbokk jullit wax joo xam ne bu ko déggoon du ko neex zikra ko ak zikra zikra ko axaaka bi ma yakrah mooy ngay wax ci sa mbokku jullit loo xam ne bu fi nekkoon du ko neex saxaaba yi na ko waaw bu dee li ñuy wax nag moom moo ko def mu ne waaw bu dee moo ko def de yéen a ngi koy jëw su dee defu ko nag yéen a ngi koy dooral mi ngi noonu ca kon mbokk jëw mooy kii li muy def moom moo ko def dóoraloo ko léeg-léeg nga dégg ab caamin bu naan ba toogoon fii dana ko wax yaa ngi dégg waaye problème bi mooy loolu mooy moom moo ko def waaye nga koy wax gannaaw loolu mooy jëw looloo tax mbokk muy lu jëfee mucc yal na yàlla musul mi moo tax ba mu koy wax ci xujuraat mu daal di indi ni mooy ak tawaab du denc nangu tuubu doomu aadama parce que mucc ci dafa jafe lool lool lool ay nit dañuy toog di jëw seen baay ay nit dañuy toog di jëw seen mag nit dañuy toog di lu nekk collègue de service yi dañuy jëwante mi ngi noonu ila axiri dafa jafee mucc ndax lu tax bu doon rek jëw mooy sosal nit ki ñu bari mën nañ ci mucc donte ne am na ay soskat waaye jëw mooy li nga xam ne yaa ngi koy wax ci nit te bu ñu woon nga noppi gis ngeen loolu mooy jëw su ko defee kon suñu borom subhanahu wa taala nag ni ki def bàkkaar ba pare yëmu ci mu sosal ko keneen kooku dee indi na buhtaan ak bàkkaar bu màgg léegi nag borom bi subhanahu wa taala ne yow yonent yàlla bi bu dul woon a gënee li yàlla ci yow ak yërmandeem benn kuréel ci ñëw daal la ñëw dugal la ci erreur sànq la ay mooy dugal la ci erreur waaye yonent yàlla bi suñu borom yàlla moo ko aar aar googu mu ko aar moo tax léeg-léeg lépp lu ko nar a indil ci dérapage boo xam ne day jeexital ci yonentam suñu borom yàlla xamal ko naka la ciy génne te yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku lañ sosoloon soxnaam su baax sa Aïcha mi ngi noonu day fiq yu bon yi véhiculé wax ci moom wax yu ñaaw a ñaaw a ñaaw mais suñu borom lu mu mujj def daal di wàccee aaya laabal ko et pourtant yonent bi alayhi salaam demoon na moom affaire bi xawoon na ko jàpp bu mu sikk sàkkati ba woote conseil ay Ali ay Usama ak ay yooyu du ngeen xam ci Aïcha ba Aïcha nee na yonent bi changé comportement sax sama digganteeg moom waaye yàlla wàcce aaya xamal ko fi muy jaar looloo tax suñu borom ni xaw nañ laa bëgg a nekk di sànq waaye yàlla mooy ka nga xam ne mu lay jàppale loolu nagam yonent bi nga xam ne moo gën a mag ci jaami yàlla yi su dee ne moom la yàlla ne am na ñu ko bëgg a sànq muy wane it jullit quel que soit sa responsabilité war ngay tey war ngay tey ci yu bëri bañ a gaaw a jël décision président nga imam nga borom kër nga kum mën a doon war ngay bàyyi xel ndax nit ñi yemuñu borom boobu nag subhanahu wa taala ne duñ la mën a lor man maa wàcce ci yow téere bi di alquran wàcce ci yow sunna bi kay firi ca mbokk diine l'islam kenn du ko dégg ci alquran moo tax malheur musiba yi bari ñu dal suñu intellectuels yi dañuy am benn coran traduit lire coran traduit yi jàpp ne nag léegi ñoom xam nañ diine lañu lay jëkk a wax mbokk coran traduit boobu nga de nga nga nga ngay lire tey jii da ngay gis ay tafsir yoo xam ne mat na trente tomes demal ci ay Qurtubi ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne benn tome bi rek sa coran traduit boobu mat na ko deux fois ku mel noonu bul jàpp ne yow xam nga diine l'islam bu ñuy xëy rek ñu lu nekk ñuy nekk ci rajo yi di ko wax ñu mel noonu ca la wàjji waxu musiba yooyu moo xoon ci demoon rek la xamoo ci diine dara ba dara boo la jeex jàpp ne nag adduna buñ daje woon yow yaa leen war a jàngal diine mi nga noonu ah loolee kon la suñu borom wax mooy sunna sunna mooy firi alquran loolu ngay tax ngay dégg tafsir yi ñuy def mooy jël nan la yonent bi sam déggewul aayee borom bi borom boobu nag mu ne maa la xamal loo xamul woon ca mbokk yonent bi alayhi salaam doomu aadama jàngulu ko boromam moo ko jàngal jaaree la ko ci jibril alayhi salaam allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa mooy jibril mu dëgër moom la yàlla doon jottali xamal mu jàngal yonentam sallallahu alayhi wa sallam kon maa la xamal loo xam ne xamoo ko woon ngëneelu yàlla nag lu màgg la ci yow mbokk ngëneelu yàlla ci yonent bi alayhi salaam bari na lool bokk na ca moom ya yàlla def li borom ñépp dëppoo mboolem nit kuy dund ki fi mas a jaar ak ñi mas a jaar borom xam-xam yi dëppoo nañu yonent yàlla moo leen gën am nañ nag ixtilaaf ndax moo gën malaaka yi loolu moom am nañ ci ixtilaaf waaye dëppoo nañ ni nit ak jinne moo leen gën mi ngi noonu ca it la ëpp ca ñoom it dañ ne moo gën ci li yàlla bind mi ngi noonu moo gën ci li yàlla bind léegi gannaaw loolu yi tamit yàlla wàcc na ci moom téere boo xam ne mooy ngën ci téere mooy alquran wàcc ci moom sharia ngën ji sharia boole ko ngën ji xeet xeetam ñoo gën ci xeet yépp lay ànd ak moom tabbi àjjana ci xeetam bu àjjana doon ñetti parti ñaari parti yépp ci xeetam la ñu bokk sallallahu alayhi wa sallam loolee kon ay ngëneelam lu bari la waaye nag mbokk du tax nag ñu yóbbu ko fa nasaraan yi yóbbu isa ibnu maryam da daan wax la tatruni kama atarati nasara ibnu maryam fa innama ana abdu fa qulu abdullahi wa rasulu bu leen ma tagg ba tagg ma na chrétien yi tagg isa man jaam la dee leen wax jaamu yàlla yonent yàlla moo tax dañ naan abdul la yu'bad rasulul la yukazzab yonent yàlla baa ngi nii jaam la kenn du ko jaamu waaye yonent la kenn du ko weddi lu mu wax yàlla ko wax lu mu wax dañ ca war a topp amma jaamu gi nag moom yàlla dong la ñuy jaamu mi ngi noonu moo tax suñu borom ne ko ngëneel li yàlla màgg na ci yow yàlla moomu ko wàcc ci ay ngëneel mu wàcc ngëneel ci xeetam yàlla na yàlla boole ñu ci xeetam yàlla nañu yàlla boole ñuy ànd ak moom ci firdawsil aala wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain jullit lépp loo xam ne bu ca nekkee day tax bu faat julli dafa war a baloolu loolee kon suy fanaane liggéey na yen doo nelaw bu jeex waaye nag jàpp ne man trois heures du matin quatre heures du matin laay laay laay wàcc kon damay continuer ba jant bi cinq heures ma yeewu julli fajar loolee mbokk ku koy def xamal ne yaa ngi ci danger wax naa sànq ni ki nga xam ne dafay nelaw kookee day dafa doon loo xam ni heure bu yeewoo muy waxtoo waaye loolu koo xam ne nelaw ya dafa nekk accident mais koo xam ne wóor na ko ne man kat lii moom su may tëddee nelaw sama programme mooy dama yeewu avant waxtu bi te jëlul benn matuwaay bu ko yee kookee moo koy far julli ñoo yem mi ngi noonu wallahu alam naam bismillah naam naam waaleykum salaam sa xel dem ci yàlla fekk yaa ngi ci wala loolee moom dara nekku ci loolee dara nekku ci képp koo xam ni yaa ngi nekk ci biir douche ba bu la neexee di tudd yàlla ci sa xol di xalaat yàlla ci sa xol la ñuy tere ci biir douche ba rek mooy di tudd turu yàlla ci biir ci sa làmmiñ amma xol moom doomu aadama mënu ko contrôler loolu mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam waaleykum salaam mu ne waaw ñaan ñi def ci biir julli ah ci witre waaw loolu day la ci gënoon mooy ñu koy bañ a saxal tous les jours borom xam-xam yi dañ caa neex ci la am na ci ñoo xam ne jàpp nañ ne mënees na ko def weer bi yëpp am na ñoo xam ne dañ naan quinze jours yu mujj yi lañ koy def doonte ne ne la ca gënoon a dugg dóomu it mooy ñu bañ koo saxal di ko def gannaaw ba di ko bàyyi loolee mooy la nga xam ne moo ci gënoon mi ngi noonu wallahu subhanahu wa taala alam naam naam bismillah naam li may laaj jigéen ji nga xam ne si jamono ba daan julli guddi ba bët set di jaamu yàlla bi ñu ko laajee mu ne moom li ñu jaamu yàlla ragal safara taw bëgg aljanna tamit taw waaye aljanna jaam na safara jaam la kon nag day jaamu yàlla comme yàlla moo ko digal jaamu yàlla comme ni ko laaj tàllaw waaw loolu dañ koy wax ci rabiyatul adawi waaye nag nañu xam ne loolu njuumte la mbokk ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek da nga juum wax jooju waxi njuumte la soo delloo ci ñu bari ci sufiyanke yi dañuy wax loolu jaamu ma yàlla pour àdduna pour àjjana jaamu yàlla pour ragal sawara damay jaamu yàlla pour jaamu yàlla mbokk suñu borom subhanahu wa taala gis nañu ne mboolem ay yonentam xaritam ba ibrahima lan la doon wax suñu borom waxul woon yàlla wajaal ni min warasati jannati naim am déet yàlla boole ma ci ñiy dugg àjjana waxu ko woon wala tuxzini yawma yub'asun yàlla ba ma boole ci ñiy toroxal loolee kon bokk mboolemi yonent dañ doon ñaan yàlla rëhaban wa rëhaba kaanu yad'una raghaban wa rahaba yàlla lim ñu list yëpp ne mi ngi nii dañ ma doon woo ngir ragal sama mbugal di ma woo ngir yaakaar sama xéewal kon yàlla dañ koy jaamu en tant que mooy suñu borom waaye dañ koy jaamu it ngir bëgg tabbi ajjana dañ koy jaamu ngir mucc ci sawara ndax ñàkk koo jaamu gi sawara la ñu jëm jaamu gi àjjana lañ jëm te bëgg googu ñu bëgg yàlla yàlla doo ko gis yowmal qiyaama lu dul nga tabbi ajjana da ajjana gis yàlla dëkk gi yàlla daa bokk ci ajjana looloo tax dañuy jaamu yàlla ngir ajjana jaamu yàlla ngir mucc ci sawara jaamu yàlla ngir bëgg ko yàlla na yàlla subhanahu wa taala boole ñu ndaw
léegi bu fekkee ne liggéey bi nga continué. daanaka.
ala kulli xaal naam naam boo xoolee lu bari ci ci ci yiñ daan wax ci nit ñu njëkk ñi da ngay gis ne biñ demee ba montre xew yooyu yëpp dafa dàqu xel nangu ko woon xel bu rafet masala ñaan rabitu adama yi moom muy la guddi gu nekk junni rakkaa lay julli mbokk junni rakkaa nga bëgg koo julli ci guddi gi même bu guddi gi doon dix heures de temps nga bëgg koo séddale mille rakka rakka bu nekk ñaata seconde lay am yaa ngi dégg ba pare nga bëgg koo saxal loolu da ngay dégg ñu naan na masalaan diw day ah da daan jàng ñeenti kaamil suba ñeenti kaamil ngoon mbokk julli loolu nan la mën a nekkee ah am ordinateur sax ku ko ak activé ndax ñeenti kaamil suba ñeenti kaamil ngoon ah ila axiri donc dafa am yoo xam ni dañ ko doon taggee ñu njëkk ñi dañ naan la Abu Hanifa toog na 40 ans yoo xam ne jàppul fajar ndax fi mu jàppee gay day continuer di naafila ba fajar ci lay julli fajar pendant 40 ans mbokk loolu ay xel mënu nangu loolu lu ala kulli xaal mbokk ñu xam ne lay jaamu yàlla gu jub gu sell mooy naka yonent bi ak i sahaabam doon defee am maa ñi ñëw ci gannaawam nag li ñuy ñaan yàlla nangul leen waaye bépp doxalin boo xam ne nii lum la yéem yéem yéem bi nga ko xoolee gisoo kenn ci sahabatul kiram daan ko jëfe doxalin boobee nañu xam ne bokk na lu borom xam-xam di wax law kaana xayran la sabaquuna ilayhi lii bu doon lu baax la sahaaba yi ñu ngi cay jiitu yàlla yàlla teg na ci yoonu sahaaba ya yàlla dugal ñu fa mu leen di dugal yowm alqiyama wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain